daa wax ne léeg-léeg sangu farata war ko ci man yu moo xam ne génn na ci moom te àndul ak bànneex te moom dafa sartoon génn nga ànd ak bànneex ñu ne ko loolu lan la mu ne mi ngi mel ne mu jotee ba noppi xanaa mu jotee ka muy joteel ba àggal dem nag sangu ba noppi man yu door a génn xam ne kon amoon na bànneex ci jote ga waaye dara génnutoon gannaaw bi mu demee ba sangu ba toog nag la mën yu door a génn li tax ñu ne loolu mëttoon a wax mooy boo ko dee seet dana la wax léegi ci kanam ne la bopp sawukaay bi dong bu xasee dugg ci jeneen awra rek sangu farata dal di koy war te xam nga ba mu jotee rek moom bopp sawukaay ba mën nga ne sawukaay bu lépp sax baa bu gën gaa niw daal moom bopp sawukaay bu duggoon na ca awra kam doon joteel loolu képp waroon na mu sangu ci farata ni ma koy bëgg a waxee léegi ci xeetu janaaba bu ñaareel bi mhm. kon nag kon xam nga ne ki jotee moom ba jotee rek xam ne sawukaay bi dugg na mbaa bopp rekk dugg na sangu farata waroon na ko kon li muy wax naa ne bu jotee ba àggal dem sangu ba noppi nag man yu door a génn kon man yu génn na te bànneex te mel ne kon man moom bu génn te am tëg bànneex moo ko taxa sangu farata déedéet la ko taxa sangu farata mën nga ne jote gam jote bu bopp sowkaay bu dugg rek sangu farata waroon na ca waaye masala moom xëy na du la lënt incha allah wa maxyibu xachafatil baarixi ak fàddu bopp sàkkarab mu kàllaf wax yo moom rasul dakari mooy bopp sàkkara aw maxyibu misliha wala fàddu lu toll ne bopp ba min maqtooxiha ci kañu dagg bopp sàkkaraam fii farji aadami yi ci payum doomi aadama aw xayrihi mbaalul doomi aadama on saa moo xam jigéen la aw zakar wala muy góor xayin muy aji dund aw mayit wala muy aji dee ku faatu wa in lam yun sil ak doon te wàccewul mànn yo daa wax ne moom mu kàllaf mu góor mi bu fekkee ne bopp sawkaayam waaw bu fekkee da nga dagg bopp sawkaayam lu toll ne bopp ba dugg na ci awray keneen moo xam kooku doomi aadama la moo xam du doomi aadama moo xam jigéen la moo xam góor la moo xam loolu daa fekk mu dund moo xam loolu daa fekk mu faatu donte dara génnut amu ci bànneex loolu mooy xeetu janaa bi ci des maanaam ba tey du tee mu war a sangu farata muy bu ñaareel bi watam naaw dana tere al janaabatu janaaba mawaani xal xadasi terey toj ma al asxari ma gën a ndawe maha siyaadati taxrimi xiraatil quraani ànd dolli araamal jàng al quraan waaw nee na koo xam daa amee janaaba dañ koy aaye lépp luñ aaye woon ku amatum jàpp yaa nga weesu ci sa dund tey ne ku amatul njàpp sañu ko dañ koy aaye moom mi amee janaa ba noppi dolliwaat ci yii dañ ci dolliwaat ne ko alxuraan léegi sañoo ko tari ci saw làmmiñ aaye woon nañ ko laal kaamil bi léegi dañ ciy boole nag araamal ba tey mu tari ko ci làmmiñam ilal aaya tan dara laaye woon na waxaa ak mel ni moom xalaawa ci taxawudi ci anamug léemu war ruqaa ak ay mocc wal istidlaal akub sàkkoo tegtaloo ci àtte ah nee na lay li ñu mën a tari ci alxuraan du bari benn laay wala ñaar te fekk mu bëgg koo léemoo mbaam bu doon mocc bëgg koo mocce mbaam doon wax ab àtte mu doon àtte bëgg a jàng laa jàng laay ba ngir tegtaloo ko ci àtte bu mu àtte loolu rek mooy tax mu sañ ko wa doxoo lil masjidi ak dugg jàkka wala mu si ak sax fii ci moom maanaam léegi bu fekkee dafa amee janaaba ba keroog muy sangu dañ koy aayu dugg jàkka romb rek jàll mel ni aw ci bunt bi jàll ca bële rek dañ koy aaye rawante na far fa toog nag toog yi jëlal nañ ko ba tax boole ci wal mu si fii wal xuslu sangu minal janaabati ci janaaba mustamil aji làmboo la xalaa faraida ci ay farata wa sunnanin ak ay sunna ak i nganeel am nee na sangu janaaba am nay farata am nay sunna am nay nganeel fa ama faraiduhu daal ay farataam fa xam satin juróom la niyatu rafil xadasi mooy yéenee yëkkati toj ma al akbar ma gën a mage maanaam bu dee sangu farat day yéenee yëkkati toj mu mag mi mu ne mu ne yéene naa sangu janaaba ji mbaa mu ne yéene naa yëkkati sama toj mu mag mi te mooy janaaba ji moom na bu dee tàmbali rek mën naa yéene fi sax ndax lépp yaram moom daa doon farate ci mu raxas ko te yóbbu te maanaam yóbbu fa ndox te boobu ko loxoom moo tax wata amimu zahiril jasadi ak natale bit yaram wa bil ci ndox bokk na ci faratay ca ngaay lépp luy feeñ ci dëru ndox dafa war ñu bomb ko boole ci mm-hmm. ko ak ragg ga ragg googu moo tax mooy bomb gi fépp day daj ci am ndox ba noppi tam ñu bomb ko boole ci ko mu nekk ñett bu ko boolee yéene ji wa taxliilu shahri ak xalil kawar ga am fekkee am na fenn fu am kawar ci yaramam muy ci bopp bi muy ci sikkim bi muy ci feneen ci yaram yépp des koy war a yëngal ba ndox mu dugg ci biir wal mu waalaat akuk sësale sësale mooy bu xasee tàmbalee sangu du ko saña dagg dem di waxtaan ba fa jeen itte bu ko defee tey ko ba mu yàgg rek mu yàqu su fekkee fàtte moo tax nag moom saa yu ko fàttalikoo dal di wéy te du ko tee baax wa amma sunanu woon daal ay sunaam fa arbaatun ñeent la sunay cangaay bariwut albat um mooy jëkke bi xas li yeddayn ci raxas yaari loxo yi qabla idxaalihima njëkk seenu duwal fi inaay ci ndab la maanaam boo dee tàmbalee sangu farata da ngay raxas sa ñaari loxo bu ne ñetti yoon bala ngaa tàmbali as daga ndab lu ñu as la bu dee ndox mu bari lool nag te say loxo taqut mën ngaa jékki-jékki as rek kon nit bu dee bu waar gu fees bu dee géej wala dex itam da ngay jékki-jékki rek as hmm, bu fekkee ne itam da ngay sangoo lu mel ni set la itam nga xam doo as itam ba tey rek du dee raxas loxo ñetti yoon moom booy tàmbali sunna la wa mason simaaxil ubbi nay ni ak masa bën bënu ñaari nopp ñaa maanaam tey duñu wax masa nopp yi ndax li nga mën a jàpp ci say nopp boo dee sangu farata nga raxas ko moo nga raxas sab dënn sa gannaaw ñooye moom farata la bën bën ba ci biir nga xam ne feeñul nag lañu wax ne nga luqar ci ko sunna la wal mab mabatu ak galax ndiku la ci cangaay wal istinshaaxu ak sarax moom itam sunna la ci cangaay wa ama fadailuhu daal ay ngëneelam fa sabaxatun juróom ñaar la ak tasmiyatu moo di wax bismillaahi booy tàmbalee sangu janaaba nga wax bismillaahi ngëneel la wal badu ak ji ak tàmbalee bi xas li maa ci raxas la nga xam ne xalaa badanihi nekk na ci aw yaramam minal adaa ci sawe sumal wudoo topp jàpp kaamilan mbir mi aji mat marratan marratan benn benn waaw nee na bokk na ci ngëneel yi ca ngaay nga njëkk dindi fu la sobe taq ba noppi ci yaram bi bu ko defee nag nga doral batiku njàpp njàpp benn benn soo sangoon kese yem ci mu doy waaye nga jàppale njàpp benn benn moomu nga jàpp ba noppi te ñu def ko lu ne nga def ko benn booy raxas kanam benn booy raxas loxo benn loolu ngëneel la wayen wi dana yéene bi ci jàpp mi rafal janaabati yëkkati janaaba ja xantil kal ahdaay walis yooyu la cër loolu da ko wax rek waaye mënta weer sopp ndax daa wax ne boo dee sangu janaaba tey jàpp kon nga yéene yëkkati janaaba ji cëri njàpp yi te ba ñu a yéene njàppum kese waaye loolu du cib sart bu ci yéene woon yéenim jàpp tam du ko tee doy bu yéenewul dara tam du ko tee doy kon sart bi mu sart mu yéene ci yëkkati janaaba ci cëri jàpp yi du cëb sart su ma ifaadatul maa yi topp sotti ndox mi xalaat rasi yi ci boppam sa ñetti yoon maanaam sa bopp nga raxas ko ñetti tànk yi lu ñu sopp la nde sax bu fekkee itam sa bopp dafa bari kawar ba am tilim ba ñett sitlu ko it da ngay jàll rek ba mu set te daj bu fekkee da ngaa yore nel nag di taqut moom la neexee ba defee benn yem ci waaye duñu tee ñu nga jàll ba ci ñetti yoon suma ifaadatul maa yi topp sotti ndox ma xalaa shiqihi ci wetam al aymani kay ndeyjoor xablal aysari ci njëkk wetu càmmoñ ka bokk na ci nga neeli ci ngaay lépp lu am ndeyjoor ak càmmoñ nga njëkkee wetu ndeyjoor ga mujj wetu càmmoñ ga niki bu dee ñaari wet yi ak bu dee ñaari nopp ñi ak bu dee ñaari tànk ñi yëpp rek fi nekk nga njëkkee ndeyjoor mujj càmmoñ nga neel la wal batu ak jëkkee bil ahaali yi ci gën jaa kawe yaram yi xablal asaafili ci njëkk gën jaa suufe nga ne bil lii ci gën jaa kawee cër ya xabil asaafi li ci njëkk gën jaa suufee cër ya cër bu ne boo ko dee ragg nga tàmbalee ci kaw wut si suuf gi moo gën tàmbalee ci suuf nga wuti kaw ne bu dee wet gi nga tàmbalee ci mbagg ma wut si bëtiwoom yi moo gën bu dee yeel bi nga tàmbalee ci bëtiwoom wut si dojar ya moo gën tàmbalee ci dojar ya wut si woom yi wa taqlil maay ak néewal ndox ma ma ihkaamil xasli ànd xereñ raxas ga bi kasril xamsati ci kasara xamsa gi kasara mooy ci suuf boo wax ne ihkaam ngay def def ko i te bañ koo def a ah, ihkaam lay doon ay la mucc na mu it xaanihi ak xereñeem naa bokk na ci nga neeli cangaay ndox mi nga bañ koo yàq def lu yem rek te boom bu baax a baax ba mu set kenn ku nekk nag moo xam la yem ci moom bu dee ñenn ñi seen yaram dafa tuuti ñenn ñi rëy ñenn ñi seen yaram ñares ñenn ñi nooy kon kenn ku nekk bu defee la yem ci moom rek te boom bu baax rek loolu lañ sopp def lu ëpp daal moom taamuwuñ ko bidaa la ñàkk dégg fiq la faslun lii beneen dog la at-tayammumu tiim tahaaratun ak laab la turaabiyatun guddi kojug suuf tashtamilu og dana làmboo xalaa masxil wajhi ci masaa kanam wala yadayni ak yaari loxo nee tiim ak laab la goo xam ne suuf lañ koy defee waaye moom du weesu raay kanam gi ak yaari loxo yi foofu rek la tiim yam wa sababu xoo sababam faqdul maa i moo di ñàkk am ndox xaqiiqatan ci dëgg-dëgg aw maa wala loo xam ne xoo moom fii xukk mi yi nekk na ci àtte ñàkk ndox ne la tiim nag du saa yu neexee rek def ko day am sabab moo day am tax nga sañ ko mel ne amoo ndox ci dëgg-dëgg mu amoo ko mbaa am nga ko waaye sa am gii moo ñàkk amayam loolu nag moom lay misaale mislu an yakuna mel ne mu nekk maaxaw ànd ak moom minal maa yi ci ndox maa loo xam ne laa yëg fii du ko doy mel ne am nga ndox moo xam ne soo ci tàmbali woon a jàpp wala boo ci tàmbali woon a sangu day jeex te doo àggal xam ne ko doyut loolu moom ñàkk ndox ñoo yemoo ndax ndegam boo tàmbali du àgg rek say boo jàppee ko ni moom loo amu aw maa un wala am ndox yaxaafu moom dana ragal biste amaalihi ci jëfandikoom fawaata nafsihi faatu bakkanam aw fawaata manfaatin wala faatu njëriñ aw ziyaadata maradin wala dolli tawat aw taaxura bur in wala yeexu gu wér aw xuduusa maradin wala sosug tawat ba tey nee na bu fekkee am nga ndox mën nga koo jëfandikoo waaye dangaa ragal ni soo ko jëfandikoo rek sa mën na cee des mën ngaa far faatu mbaa dana la xañ njariñ lu rëy rëy nit ki boo jëfandikoo ndox mi ab cër ci say cër dana wala batiku yàqu nit ki bu dee sa loxo mën na caa jaare làgg wala bu dee say bët mën na caa jaare gumba xam ne moom daal mën na laa xañ njariñ donte doo faatu itam wala boog da ragal ne boo jëfandikoo ndox mi am tawat dal la joo xam ne dalu la woon kooku moom mooy xoddoo sa maradin mbaa am na tawat ji la joo xam ne na yokk gën a metti mbaa bu yokkuwut tam dana dana a wér dana gën a yéex a wér loolu nag benn nga xam yaa ko xam ci sa bopp wér-wér mbaa ko xam faj docteur bu xam faj moo la ko wax lu ci mën doon rek kon yow sa mooy tiim da daal di bàyyi ndox mi wayu baaxu def na daganal at ci am toj al asxari ma gën a ndawe wala akbari ak ma gën mage isa wujjida ndeem amees na waaye ndeem fekkees na sababu ko sababam lil maridi ñel aji tawat wala musaafiri ak aji tukki di kulli salaat ñeel gépp julli waaw nee na moom bu fekkee daa xas tawat ba tee ko mën a laal ndox wala muy tukki ba tukki bi tax koo ñàkk ndox kon moom nee na mën naa tiimal julli gu ne mën naa tiimal toj mu ne xanaa muy toj mu ndaw nga xam ne jàpp dong la laaj ak muy toj mu mag nga xam ne sangu la laajoon du tee rek moom dagam daa tawat ba mënta jëfandikoo ndox kon tiim mooy farataam bu fekkee dee tukki bi amul ndox it noonu julli gu mën doom rek muy faratu muy la mën na koo tiimal wali saxiix ak ñeel aji wér alxaadiri alxaadiri ji aji teew li salaatil janaasati ñeel julleeg tàdd julleeg tàdd mooy julleeg néew isaa taxa yennet ndeem ràññiku na nee na yow bu fekkee dara dalu la boo amoon ndox mën koo jëfandikoo te it yaa nga fa nga dëkk tukkiwoo kon nekkoo marid nekkoo musaafir ndax wér nga boo amoon ndox mën koo jëfandikoo yaa nga fa nga dëkk itam kon yow nee na du rek julli la neex dal koy tiimal naafile moom génn na ci yow sañoo koo jékki-jékki tiimal lay kay bu dee julleeg ne goo xam ne daa ràññi ko ci yow mooy ku amum njàpp mbaa ku tawat ba tiim nekk farataam mbaa kuy tukki ba tiim nekk farataam nekku fa yow yaa fi nekk tiim rek mooy sa moom nga man waaye néew bi mënoo koo ñàkk tiim jullee ndax boo ko deful yaram wi soppi ko su boobaa kon da daal di tiim jullee ko nga dolli ci wali fardi xayril jumaati ak ñeel faraata jurul jumaa bi sharti yaxsha ci sartu mu ragal fawaatal waqti faatu waxtu wa bis ci amaalil maa ci jëfandikoo ndox ma nee na nga dolliwaat ca gépp julli farata danga ko mën a tiimal bu waxtu wa jotee ndegam amoo ndox rek dëgg la wér nga yaa ngi fi nga dëkk waaye amoo ndox kon julli farata gu mën nga koo tiimal moom waaw ba tey itam nag bu fekkee ne julli jumaa la xam nga daa wax ne moom da ko cee génne ne sañe su koo tiimal waaye da koy teqale jàpp ne jumaa bu fekkee ndox am na nga rek ne boo fi nekkee di jëfandikoo ndox mi waxtu raw la kon da jàpp rek bu la wax bu la jumaa ji rawee nga julli tisbaar waaye bu fekkee ndox dafa amul nag kon dañuy tiim julli ay jumaa kon jàppal ne bu ñu nee ajuma de su ko tiimal day fekk nga am ndox nga ragal ne boo dee jàpp rek ajuma ji raw la waaye bu la wóoree ne ndox mi am na moom dangay jàpp rek bu la ajuma ji raw itam nga daal di julli tisbaar hmm, bu fekkee amoo ndox nag moom da ngay daal di rek julli jumaa bu ko defee nag genn farata gu bokk te jumaa nag moom bu ndox mi teewee nga ragal ne boo fi nekkee di jàpp doo ca am sax lu matub rakka kon da ngay bàyyi ndox ma daal di tiim gaaw julli ko mu ne boo xawee naajee yeewu ci suba nga xool la jant bi bëgg a fenk nga xam ne boo fi nekkee di jàpp am ab rakk doo ko ci am kon na nga daal di gaaw tiim rek am ci rakk ci julli jeex moo tax mu ci sartu mu ragal waxtu waraw ko ci bu dee jëfandikoo ndox ma wala yoon du te du baamu maanaam saa yoo xasee tiim julli te tiim bu nga amoon ci ndigal rek hmm, gannaaw ba du tax nga baamu julli ga bi xilaafil janaasati ci wuuteeku tàdd isa lam tataxa yéen dem ràññi ko wut loolu nag wuti naag néew boo xam ne yow mënoon nga ko bañ a jullee ndax ragaluñ ca soppiku mbaa ku amum njàpp nekkoon na fa mbaa ku tawat ba farataam nekk tiim saña tiimal yëpp nekkoon na fa mbaa kuy tukki ku amul ndox nekkoon na fa kon ne yow boo ko jullee ràññi ko ci yow mooy mënoon nga ko bañ a jullee yooyu jamono kon daañu ko baamuwaat jullee ko maanaam boroom jàpp day ñëw baamuwaat ko mbaa ku tawat tiim jullee ko mbaa koo xam ne day tukki ba ñàkk ndox tax koo tiim danga yow bi nga ko jullee rek amoo ci woon ndigal nga gaawantu rek kon des na ko baamu jullee ko wa fardil jumuhati ak faratay jumaa wala xas yi ak doonte ragaloon na fa waatahu ak faatam wala doon naa ko wax léegi faratay jumaa moom maanaam julli jumaa daal bu fekkee ndox mi am na li nga ragal daal mooy boo fi nekk di jàpp rek mu raw la du tax nga sañ koo tiimal da ngay jàpp rek bu la rawee nga julli tisbaar wa saairin nawaafili ak mboole naafile yi moo xam seeni sunna la wa mustahabatiha ak yooyu ñu sopp ci bu fekkee yow yaa dëkk te yéen ndox rek nga ñàkk ko mën kon doo mën a jékki-jékki tiimal julli sunna ni wetar bu fekkee danga ko bëgg a tiimal moom doo doo mën doo mën a jékki-jékki tiimal ko korite julli sunna la lu mel julli korite mbaa tabaski julli sunna lañ doo mën a jékki-jékki tiimal leen ba tey bu dee julli ko ñu sopp mooy julli naa fi li ci des mel ne julli yoor yoor wala dawalal tisbaar yooyu yëpp bu fekkee ne yaa ngi fi nga dëkk te ba amoon ndox mën koo jëfandikoo ndax wér nga yooyu yëpp doo ko sañ a jékki-jékki tiimal mën ngaa jékki-jékki tiimal farata nag bu farata jàllee nga jàll teg ci la ci tiim boobu nga tiimoon rek wa yabutulu dana yàqoo atta yemma mu tiim bi maa ci la nga xam ne yabutulu dana yàqoo bi ci moom alwado njàpp nee na lépp lu ñu waxoon ne lu yàq njàpp la ba tey xamal ne dana yàq tiim nga dolli ci leen nga xam ne moom mën naa yàq tiim te lu mu teel moom du yàq njàpp mooy woo bi nga jóodil yi ak ci amum ndox xabla salaati ci njëkk julli maanaam boo tiimee ba àggal laata ngay kàbbar ñu andi la ndox nga dégg ne ndox nga dégg robinet bi kon tiim boobu tiim boobu yàqu na ngay dal di jàpp day daal di war nga jàpp te bàyyi tiim boobu tiim bi yàqu na illaa an yaxsha na rek dafa ragal fawaatal waqti faatu waxtu wa biste amaali yi ci jëfandikoo moom ndox ma lu may ne waxtu daa xat ba nga xam ne boo fi nekkee di bëgg a jëfandikoo ndox mi nekk ngay bëgg a jàpp baa ngay bëgg a sangu far waxtu wa doo ci amul sax su boobaa kon ngay daal di wéyale sa tiim boobu ndegam tiimoon nga bu fa idaara andeem gis na alma a ndox ma waxu watu fekk na moom fi salaati nekk na ci biiru julli lam tabatul du yàqu salaatu woo julleem nee na boo xasoon tiim nag ba tàmbalee julli door amum ndox waaw ah, kon moom na nga ci julli rek julli ga baax na li mooy nga tiim ba àggal nga am ndox te waxtu wa ci waaye léegi mu moom doo da ngay wéy rek waaye tiime bi saa yi di ci pàkk ak tay bi buy aji laab nga wax ak tey buy aji tey waaye mooy laab rek nee na boo dee tiim da ngay seet la la yoon digal nga tiime ca nga tiime ca ndax buñ ne pàkk bu laab du suuf rek lépp lu yoon maye ko ca tiim rek loola pàkk bu laab la moo tax mu ne waxoo moom pàkk bu laab ak turaabu mooy suuf suufus kese wala xajaru ak doj waram lu ak beeñ wa jamihu ajsaa'il ardi ak mboolem xaaji suuf si maadaamat li fekk sax nañu xalaa xëy atihaa ci seenu melo nga xam ne lam tuxayir xaa soppiwu leen sanxatu aadama yi yéen liggéeyub doomi aadama jëf jëfub doomi aadama bi tabaxin ci togg wa nax wi ak lu mu nee na suufus kese mënees na cee tiim moom sax moo gën ci lépp lu ñuy téeme dana ko wax léegi doju tam wépp doju woo xam na ko yàlla sàkki rek loxol doomi aadama soppiwaatu ko niki doju dënn doju kew doju carrière yëpp mën nañ cee tiim suuf beeñ noonu lépp loo xam ne itam xeetu suuf la rek xaaju suuf yi dañu jul lépp loo xam ne xeetu suuf la rek ak nu bindoo ca donjwu mbaa yooyu rek mënees na cee tiim li fekk loxol doomu aadama soppiwu ko bu ko loxol doomu aadama soppee ne mel na ciment xam nga ciment dañ koo liggéeyaat ba mu doon ciment waaye mi lu toon noonu lu mel noonu bu ko doomu aadama xasee soppi rek duñ ci mën a tiimati wala lu mel ne laso bu ko xasee togg togg mu wax mi ngi mel ne mu dellu ci laso wala ban bii buñ ko lakkee xam nga ban buñ ko dee liggéeyee njaq yi des ko lakk buñ ko xasee lakk na desu ci mën a tiimati suuf afdalu moo gën min xayri ci ludul lépp looy tiime suuf moo ci gën wala du tiim xalaa shay'in ci dara na fii sin luy aji gànjaru maanaam luy aji foor kat zahabi ni ki wurus wal fiddati ak xaalis nee na bu fekkee loolu aw doj la aw xeer la waaye bokk ci xeer yi yàlla def ñu am valeur ñu xayma lool li ki wurus ak xaalis moom kenn du ci tiim wala xalaa lib jëm du caagee ni ci kaw ab lal teg lal teg mooy laltaay wala xalaa bisaatin du caagee ni ci tàbbi wala xasiirin du caagee ni romb jaan wa in kaana ak doonte nekkoon na fiihaa ci moom aw xubaarun pënd nee na lu mel ne xeetu lal taay wala xeetu tappi wala xeetu basang ak lépp lu ñu lal ci suuf rek xam ne xeetu wut ak suuf doon di suuf a koy saxal ci suuf lañ koy ràbbee maanaam gàncax suuf lañ koy ràbbee du tax nga mën caa tiim waaye jos dana dagan lil mariid ñal aji tawat isa lam yajid ndéem amut mën koo xam ne yu naawi lu dana ko jot jottali turaaban suuf añ yetta yemmam mu tiime bil jidaari ca miir ba almabni yi bari buñ tabaxe bi too bi ci moolu ban an nii i bari aw bil xijaarati wala ci ay doj ida kaana ndem nekk nañu xayra mastoratin du luñu muur wala du luñu suturaal bul jiir ci ciment nee na soo tawatee nga xam ne wàcc ba ñëw ci suuf si tiim ci dalaa jafe te miir bi danda yow nañ ko tabaxee muul ban kese ban boo xam ne kenn lakk ko bokkut ak ban bi ñu lakk mel ne bi ñu tabaxee njaq yi na ko yàlla bind rek dañ ko muul noonu rek kon nee na mën nga caa tiim ndax dañoo waxoon ni suuf daa gën rek waaye ban boobu mënees na ba tey bu fekkee lañ miire miir ba ay doj la yoo xam ne na ko yàlla sàkke la mel kenn raaxaatu koog ciment ñu bu dee doji carrière lañ tegale doji carrière ba mu di miir rek te kenn raaxul ciment ci kaw hmm, ba tey mën nga caa tiim waaye buñ ko wax si ciment wala ñu lasoo ko doo ci mën a tiim waman tayammama ku tiim xalaa mawdihin ci béréb najisin bi aju sobewu wala mu yaalam te yëgut bi najaasati ci sobewoom ahaada kon mu baamu fil ci waxtu wa nee na boo tiimee ci bërëb boo xam daa am sobe waaye waxtu nga cee tiim nag dawaroo sikki sàkk ba xam laab naam laabul rek xamoo ci woon lu wóor gannaaw ba nag nga door a xam sobe ga waaw mu nekkoon kon dangay baax mu ci waxtu wa mooy bu waxtu jeexut ñu sopp nga tiimaat beneen tiim ci bërëb bu laab dangam sa farata mooy tiim su ko defee nag baax mu julli ga su fekkee ba nga cee tiim xamoon nga ne nag moom daa sobewu moom kon faaw da ngay baamu faaw waxtu wa jeex ak waxtu bañ a jeex ci yam waxtu wa jeex ak waxtu bañ jeex ñoo ci yam wala yukrahu déeful sib attayam mu tiime bi turaabin ci suuf tuum mi ma soo xam ne tiimee foon na bi ci moom maratan aw yoon oxra waneen nee na suuf soo xam ne nit tiimoon nañ ca nga dellu tiimaat ca du wàññi dara ne bu la neexee tibb palaat rek boo xam na nga koy teg fee saa yoo tiim rek tiim ca xam ne boo dee mën naa nga tiim ca fukki yoon baalu ko ndegam cinquante demee noonu loolu du wàññi dara wala yasixu du wér at tayammumu tiim xabla duxooli ko waxtu wa tiim na moom nee na faaw de aajoo la ngay tiimal waxtoom jot tiim waaye doon danga ko jiitoo benn minute sax du baax faaw da nga xaar ba waxtu wa jot nga door a tiimal loolee ngay tiimal wasifatuhu aw meloom nag an yan mu yee mooy mu yéene istibaaxata salaati sàkkoo daganlu julli ga wayaanu yette mu yéene minal xadasi ca toj ma al akbari ma gën a mage in kaana ndem nekk na muxlisan di aji tojle xadasan am toj ak akbara mu gën a mage su ma yaqul topp dana wax ne bismillaahi maa ngi tàmbalee turu yàlla nit ñi tiimi mooy nee na bul fàtte yéene ji ndax yéene ji farata la bu fekkee amewoo janaaba kon na nga yéene daganloo julli rek noonu waaye bu fekkee da ngaa amee janaaba ngay yéenee dagan loo julli ànd ak janaaba ji na nga na nga dawal sam xel ne amee nga janaaba mooy amee nga sa ca ngaayul farata damaa waxee janaaba rek waaye naka noonu bu doon ko amee ca ngaayul farata mel ne ko amee mbërëg tam jeex wala wasin ba tey noonu day yéene loola wa yastaamalu te muy jëfandikoo assaayida pàkk ba nga daal jëfandikoo nag la ngay tiime muy suuf muy leneen yàddari day dóor alayhi ci kawam bi yeddehi ci yaari darbatan ak dóor waaxidatan bu di wenn dóor gi mu wax jubluwu ci xàcc dóor dafa wax ne na ngay na ngay jékki-jékki teg say loxo rek sa yaari loxo yëpp ngay teg ci la ngay tiime bu dee suufu bu dee leneen nga jékki-jékki ne ci teg sa yaari loxo fa in aju na bihimaa ci ñoom ñaari shay'un dara nafadahuma mu fëgg leen nafdan ak fëgg xafiifan guy aju woyof maanaam bi nga nee tegg sa loxo ca loola bu fekkee amalu ca taq ci say loxo mën ay bant wala xaaxaam yoo xam ne boo ko raayaalee ci sa kanam mu gaañ la da ngay fëgg say loxo ndànk rek loola rot nga bañ a gaañ sa kanam waaye na taamu nga fopp suuf si ngir baña a suuf dañoo taamu nga bàyyi ci suuf si kese bi wayam saxu te muy masaa bihimaa ci yaari loxo yi wacc xeexoo kanamam wala yataxoo akub sikkimam maanaam kanam la ñuy njëkk masaa koy masaa bam mu daj lépp loo xam ne boo doon jàpp muy guddaay bi yaatuwaay bi ci kanam gi boo jàpp raxas ko booy tiim na ko masaa na nga roq na nga luqar ci itam lu mel ne pay ki bëri daf dafa xóot ak roqal ko yëpp na ko masa bu baax moo tax mu ne yëpp da day tàmbule min axlaahu tàmbalee ci gën min axlaahu ca gën jaa kaweem yëpp daw day tàmbalee min axlaahu tukkee ci gën jaa kaweem ilaa an yastaw fiyoo ba ba mu koy matale da ngay ci jëbo bi kawar baaxoo saxe masaana bu ba nga dajal kanam gi yëpp suma yàgg bu topp dana dóor uxraa beneen dóor liy yedde yi ñeel loxoom ba tey jubluwu ci xaaj bi door dafa bëgg wax na ngay tegaat sa loxo ci la ngay téewe tegum ñaareel boo xam ne teg bu njëkk bi moom farata la waaye tegum ñaareel bii na nga xam ci ngay masaa loxo yi moom sunna la xam ci ngay raay ñaari loxo yi su ma yam sama topp dana masaa zahira yeddi yi bitti bi loxoom aliou naa bay ndeyjoor bi yeddi yi ci loxoom aliou sala bay càmmoñ xataa yan taxee ba mu egg ilal muy feq yi jëm ci la su ma yam sama topp dana masaa baatinaha biiram ba ilaa axiril asaabihi ba ca mujjug baaraam ya maanaam bokk na ci nga neelu tiim nga njëkk a raay mooy nga njëkk masaa loxo loxob ndeyjoor door a dem ci bëgg càmmoñ dañoo taamu itam booy masa loxo yi nga tàmbalee cati baaraam ya ba noppi njëkk masa bitti loxo bi door a bi xam ne kon ay tàmbalee ya te njëkkee bitti loxo bi boo demee ba ci conc la nga wañar bi ko nag awaat ci biir loxo bi ba agsiwaat nag ci baaraam yi soo yam soxot su ma yam sama topp dana masa zahiral yusra loxo loxob càmmoñ ba bi yedi ci loxoom alyum naa bay ndeyjoor ilal mirfaqi ba ci jonc la suma yam sama topp dana masa baatin ha biiram ba ila axiril asaabihi ba ci mujj baaraam ya maanaam boo masaayee loxoom ndeyjoor da ngay ñëw ci bub càmmoñ bopp càmmoñ dañoo tàmm moom it booy masaa tàmbalee ca baaraam ya te njëkk a masaa biti loxo bi wéy ba ca conc la ngooñal bi ko awaat ci biir loxo bi ba ñëwaataat fi nga tàmbalee woon ci baaraam Mm-hmm. waaye jibu dana war taxlilul asaabi xalil baaraam ya maanaam nag day aajoo ni xalil baaraam waree ci boo doon jàpp noonu lay waree ci boo dee tiim day aajoo diggante baaraam bu ne moroom ma nga luqar ci ko nga ko wóor na raay nga ak summi jaaro ba moom na xaw naa wutee njàpp bu doon njàpp moom bu fekkee jaaro bi am nga ci ndigal rek du aajoo nga di ko yëngal waaye bu fii ci tiim moom de aajowoo boo yoree jaar mbaa montal nga summi ko teg na ci sax ne fa in lam yan si xon dem summi woo ko rek lamu ci siitu ko doy donte jaaro bi dafa yaatu rek bu fekkee dindi woo ko rek du baax wat darbatu dóorin ba mooy teg ba rek ak saaniyatu bay aji ñaareel sunnatu sunna la maanaam teg bu njëkk bi nga xam ne moom ngay raaye kanam gi mooy farata waaye tegu ñaareel bi ngay teg sa loxo tegu ñaareel ci la ngay téeme sunna la wakazaniki ni almasu masa ilal mirfaqayni ba ci ñaari conc ya maanaam masa li tàmbalee ca tibaaraam ba ci tikku jare yi fi ngay takk montar bu dee ci tii mooy nekk farata waaye la tàmbalee fa ngay takk montar ba ci conc la moom sunna la ci nga masaaku boo dee teem fala wiq tasara doon ti gàttañ lu woon na xalaa darbatin cib dóorin waaye dit bu di benn lil wa ci xiñal kanam nga wala yédeñ ak loxo ya ajji sa axoo mu doy ko nee na boo tegoon benn sa loxo dong maanaam bu fekkoon benn yoon dong nga teg sa loxo ci la ngay tiime daal cay masaa sa kanam masaa ci say loxo xam ne ba tey defoo tegub ñaareel bi tegub ñaareel ba tey mu ne du tee mu baax ndax sunna rek nga bàyyi ndax dañoo waxoon la kon nag boo defee benn teg daal cay masaa kanam loxo yëpp ba tey mu baax wala wéq tasara doon te gàttañ lu woon fii mas yeddee ci masa yaari loxoom xalal ko waxee ni ci ñaari tikku jare ya wasalaati mu julli ahada kon mu baamu fi waxtu ci waxtu wa nee na nag bu fekkoon ne ba ngay masaa loxo yi da ngaa yem rek ci tikku jara yi te tàmbalee tikku jara ba ci conc la masaa woo ko kon dañu bëgg nga mu ci waxtu wa ndax xam nee na sunna la sax mu mel ne kon moo tegu ñaari ba ñoo yemoo waaye ñoo wax ne warugar la dafa dëgër moo tax mooy ñoo wax wax ci des moom dafa dëgër daa daa mu wute bu baax a baax wute bu dëgër boobu nag moo tax moom bu fekkee da ngaa yem rek ci sunna si mooy ci tikku jara yi bañ a masaala tàmbalee ci kujaay ba ci conco ñu bëgg nga baamu ci waxtu wa faslun li ab dog la ida kaana dem nekk na fii ahdail wudu ci cëri njàpp ma aw xëy xaa mbaa dul cëri njàpp ma